mooy micro trottoir micro mooy nan la sénégalais yi gisee combat Modou ak Siteu nan la ko sénégalais yi gisee seen pronostic lan la ak lan mooy seen xalaat ci diggante Modou Lo ak nga xam ne moom mooy Siteu ñu dem ci micro mbedd. waa état de forme bi moom instant bi moom macha allah quoi Modou mu ngi ci forme Siteu aussi mu ngi ci forme quoi ñoom ñaar ñëpp ku ne andi nga dara quoi li ma gisee gunni quoi ku ne andi nga dara vraiment. pour yow kam moo dàq personnage de personnage. man waaw ñoom ñaar ñëpp ami supporter Siteu li ne ci ginnaawam ku xam na ko. Modou aussi même chose quoi vraiment star bi moom jàpp naane ne balaa cinq heures suñu xeexee waaw parce que xeex bi eh, mën naa yomb ci Modou soit mën naa yomb ci mën naa xaw a ci Siteu parce que Siteu. des fois day defee ak gauche quoi day dem ak gauche day laab quoi maanaam pour man bu ñu jàppante daal Modou Lo moo avantage ci dóor yi bu ñu si dóor Modou Lo moo avantage quoi mais bu dul xam nga si temps bu dee jàppante bi day xaw a ci moom a mais bu dee distance bi xam nga day laaw quoi gauche quoi moom day dem comprendre nga. mais bu dee bu ñu jàppante nii moom jàpp naa ne Modou Lo moo avantage quoi. ñun dañuy dund lamb ndax euh, wax dëgg yàlla amuñ lu gën lamb amuñ lu gën a foor lamb waaw waaye nag euh, lépp luñ ci def rek nañ ko def ci fair play nañ ko def ci jàmm ak salaam ah Modou nag ñu may laaj ci diggante ak Siteu ah li ma ci xam rek laa la ci mën a wax ndax Modou wax dëgg yàlla maanaam euh, li ma jàpp mooy. tey lii mu am tey ci làmb ak tey fi mu egg si làmb njàmbaaram ak jomam ak fitam moo ko ak yaram ndax yar moom moo njëkk ci lépp ah si tamit yi maanaam mbër moo xam ne tamit di yàlla euh, xam naa ko ñuntuñu waaye moom it xam naa ci moom yar ak teggin ak dal kon nag euh, wax dëgg yàlla ak baax waaye daal li mën a mën a xamal daal ci ñaari mbër yooyu dafa doon lamb joo xam ne lamb ju naqaree lijjanti la parce que Modou Lo champion la bërëkkat la ndaanan la te jàmbaar la te maanaam mën na man dafa mën nu ne ndax fi koy foogee ak fi mu ñëwee du bokk waaye daal li ma la mën a xamal daal mooy euh, buñ jël fëru yëpp tamit jox ko Modou tamit ndax lamb dafa doy waar reenu njàmbi la ndax fu ne lay faxe ah Siteu tamit booy boo xam ne booy bu am booy bu doon euh, jàmbaar la a ah, mën na bis mën na lamb te xam naa ne tey lii tey mu am tey lamb li mu tey tey fi mu egsee ci lamb la la xam ak fitam ak njàmbaram moo ko may. waaw mobilisation yi moom maanaam euh, booy xool Siteu wax dëgg yàlla am na mbooloo euh, tax di yàlla mën na bis tax di yàlla tëggal ko lambam tëggal ko lamb maanaam boo ko tëggalee lamb maanaam du doon looy rëccu daal waaw ñaari côté yi daal en tout cas seen mobilisation li may wax mooy. nañ def dañ ko def ci fair play rek bëri ko ci bisimilah rahmaani rahim mu jeex ci alhamdulilahi rabil alamina